bisimilah euh, waa mbokk daayira Durus Mafatihul Bichri waaw ñi nag ñi ma séq ni ñoom ñoo yor wàllu liggéey gi euh, gi ci gën a am solo euh, xanaa rek ñu bàyyi leen maanaam ñu daal di dalal seeni bopp Euh, ngir su ko defee rek mbokki internet yi ngeen mën a xam ñii ñoo ñan ci euh, daayira gi nga xamante ne yéen a ngi koy dégg saa su ne wala di gis seen i liggéey ci lii di internet bi euh, bisimilah sëñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ginnaaw bu ñu ñëwee eh, di leen ziar bu baax di leen tubaat bu baax ci kàddu yi ñu fas yéene yëkkati waaye di ñaan laat baax a baax sëriñ Mountakha Xaadim mu àdduna fi mu yàgg fi doo ko wér waaye di ñaan laat bu baax a baax. xalifa euh, général kullu Baye Fall mu yàgg te wér barke euh, bi ndax mën nga ñëw bàttali tur bi ak sant bi ak euh, ban taxawaay nga am ci wàllu liggéey gi nga xamante ni Mafa daayira Durus Mafatihul Bichri ñu ngi koy amal at bu jot ci màggal gi nga xamante ni moo di 18 18 safar. waaw nongole Ibrahima Diop danañ koy wax ma feggoog sama mbokk tali bi muy nongole jëriñ Ibrahima Ndiaye ñu nekk ñoo xam ne ñun ñuy jiitu ci wàllu organisation bii di. màggal gi ñuy teewee ci biir kër Sëriñ Muntaxa ci màggal gu mag gi. Hmm. Euh, ndax euh, ngeen nekk fii nga xamante ne moo di daayira Durus Mafatihul Bichri euh, yéen yéen yor liggéey gi li ci gën a am solo ndax mën ngeen ñëw wax nan ngeen téye liggéey googu nga xamante ne ay at a nii mu nekk seen loxo ba at bu jot ñi gis ne daayira bi day gën di yees. waa xam nga liggéey Sëriñ Tuubaa moom nekkul lu yomb waaye liggéey Sëriñ Tuubaa moom mooy takk gi nga ci xalaat ak njariñ gi nga ci nar liggéey bi nag bu ñu ko dooree ba tey moom saa su ne day gën di di yokk te ñuy gën di def ko seef te ñu waaj dañ koy waaj waaj saa su ne li tontu bu gën a gàtt ci loolu mooy ñun moom saa suñu màggal bu jeexee rek dañuy daal di dëmmal màggal nga ci des moo waral màggal gi saa su ngeen ko gisee rek muy gën di jàkk di gën a baax noonu daal mooy nekk li nga xam ne moom la ñu téye liggéey bi incha allah ku nekk xam na ni euh, jiite mbooloo dafa jafe yéen ngeen ñëw euh, fagul li nga xamante ni moo ci gën a métti moo di wàllu organisation euh, ngeen jiite ci ay ak euh, jiite ci mbooloo te ku wax organisation wax li nga xamante ni moo di koppar li nga xamante ne ni mooy bagage yi nga xamante ni moo ngeen di jëfandoo jëfandikoo at bu jot yéen nan ngeen taxawee ci fànn googu ba du du maanaam euh, kenn ci taalibe yi du ci am lu ko métti wala mu ciy gis loo xamante ne du ko neex. waa xam nga loole loole lu koy waral mooy ñun ñi nga xam ne yor wàllu organisation bi bu màggal gi desee ñeenti fan danañ teew te loolu lu ko waral mooy li nga laaj ni ba bar jabal barab bi jagal euh, liggéey bi ba lépp mën a jàpp jàppale ci fànn yëpp ndax mu ne nee organisation rek moom mooy lépp loo xam ne dañ koy organiser ba ki nga xam ne day ñëw ci barab bi bu mën koo jagoo muy ci waa daara ji ak ñi nga xam ne ñooy fekk si waa daara ji loolu moo waral bu màggal gi desee ñeenti fan incha allahu taala dañuy bàyyoo bàyyi koo Thiès ñëw tey fii ci Touba fas yéenee jagal loolee lépp li nga waral nag liggéey suñ tubaab moom moo amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ba tax na da lépp luñ ci man dañ ko ciy def ci wàllu li nga wax mooy wàllu koppar yooyu ndax loolu boo nekk bokk sax loo xam ne dañ koy xayma yooyu waaye li ñuy jëf lay nekk te yéene ko ngir jëmi suñ tubaab waaw. ndax mën ngeen ñëw wax euh, ku wax daayira wax li nga xamante ni moo di organisation ñëpp xam nañ ni ak lu mu mënti doon euh, ci kaw suuf su amul organisation du dem. Euh, ñu buggoon xam ñaata at ngeen nekk ci euh, wàllu organisation bi. waa organisation bi mën naa ne buñ buñ buñ buñ defee xayma 2014 ba tey ñu ngi nekk ñoo xam ne ñu ñoo organiser màggal bi kon yaakaar naa loolu moom du lu bees si ñun kon buñ ko buñ ko doon xayma dina dem ci juróom-benn at wala mu ëpp ko. nga xam ne ñu ngi ci bopp daara ji di Louga bi Bichri di yor wàllu organisation bi di ko taxawee euh, di di ànd ak sama mbokk taalibe Sëriñ Ibrahima Ndiaye saa su ne ñu ciy ñu ciy jàpp bu baax ci wàllu bi. Euh, fi ñu nekk nii ndax am ngeen yéene euh, wéyal orga maanaam liggéey gi nga xamante ne moom ngeen di def ci wàllu organisation bi wala euh, fas da ngeen naa fas yéene dellu ginnaaw bàyyi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ginnaaw ñu ñëw yor fànn woowu. waaw xam nga liggéey liggéey sëñ bi moom ndigal lañ ci doxee ndax ku nekk fa nga nekk rek ndigal mën a ca bàyyi ndax ku nekk day am post boo xam ne moom la yor ci daara ji. waaye loolee buñ koy doxalee bu mboolem bu gisee ba ne war nañoo mën a euh, war nañoo mën a jébbal lenge yi keneen moom mu doxalaat noonu tam la ñuy def ndax liggéey suñ tubaa moom moo mel noonu ndax kenn moomu ko suñ tubaa ko moom kon ku ko suñ tubaa dénk rek da ngay da ngay ànd ak loolu daal da koy doxal waaye li fi diirëm ñu fi nekk moom dañ def suñ kéem kàttan ba mel ni ñun dong ñoo war a ñoo war a def lépp ngir jëmi suñ tubaa euh, ndax mën ngeen ñoo wax tamit euh, daayira bi dafa am benn bureau boo xamante ni Euh, dañ koy maanaam niñ koy waxee ci wàllu nasaraan dañ koy faral di renouveler maanaam lu ñuy yeesalaat la wala loo xamante ne daf fi sax ba ku ci nekk saa soo mënatul nga nga yëgle ni mënatuloo su ko defee keneen mën a jël sa sa xam nga lépp ci àdduna na mi demee mooy bu bu masaan def bilan ba at mi jàll lépp ci àdduna nag moo xam daara la moo xam fondation la moo xam leneen ak la. bu at ma jàlle dañuy xool liggéey bi ku nekk xool fa nga tax fa nga fa nga fa lañ la dénkoon ndax yaa ngi dox wala matam nga ko boobaa bu ñu demee réunion générale danañ toog su ko defee incha allah ñu ngi lay jaajëfal wax ji dafa mel ni euh, set na Euh, te leer na nañ doon loo xamante ne euh, mbokku taalibe yi dinañ ko mën a farloo te euh, ñu doon maanaam waa Bichri Art Pro TV ñu ngi leen di jaajëfal ci waxtaan bi nga xamante ne jagleel ngeen ñu ko jërëjëf. وسل يا ميسر العسير كلامك بلا تعصير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا أتى النبي يا ذكرى صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلي اليوم صلاح صائري وباتني خير قديم طاهر وابلي اليوم تدارك جميع ما فاتني من الخيور